la bàyyiwul benn yoon bu fekkee ne rek li mu xaw a noppi jamono ji moo tax ñu jàpp ne ñoom dinañu nangu langue politique bi euh, nañu tëdd te na mu Moustapha mu mel ni euh, Ousmane Sonko mi ngi parewaat wala sax mi ngi mel ni ku nekk jamono ji ci opposition bi waaye mi ngi mettre en garde ñi nga xamante ne wala ñeneen ci opposition yu profité parfois ci yenn mbir yi di wax. waaw man côté boobu sax man dama jàpp ne dafa yeex. Mhm. dafa yeex parce que xam nga Sénégal ñu ñëpp fii lañ nekkoon ami mhm. ñu ñëpp fii lañ nekkoon mu ñëpp gis nañ taxawaay bi nga xamante ne euh, rapport yi ñi nga xamante ne jàpp nañ leen mhm. donc on a envie de savoir certainement euh, plus plus précisément lan moo xew mhm. lan mooy lan mooy dëgg dëgg dëgg mbir mi nga xamante ne moo xew naka lañ doon téewee suñuy mbir mhm. ñu gis fi ñoo xamante ne ay rapport dañ leen a jàmbaaraamu tuuma ba léegi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi voilà ils se pavanent tranquillement dans nos ruelles te dara du leen ci fekk ñu gis fi ñëpp dañ leen jàmbaaraamu tuuma ne ñi kat wax dëgg yàlla dañoo ngemboo alal loo xamante ne. te ay leen épinglé te ay rapport épinglé leen. Mhm. waaye loolu lépp ñu gis ko ñu publier ko bu of nag bi génn cour des comptes génn ñëpp daal ne ah. wax dëgg yàlla kat ñii waa. Mhm. Mhm. Euh, mbir mi kat warul mën a yàgg war nañoo mën a kii mais à chaque fois du ñu xam lan mooy téye mais après dañuy comprendre que ne gis nañ euh, am na ay changement au niveau de la magistrature. gis nañ ne aussi tamit euh, au niveau de la police am na ay changement mhm. donc ñu xam ne kon mbir mi soratul mi ngi jege. pour man lenteur boobu noonu am na lu mu si jur quoi pour man lenteur boobu am na lu mu jur ci mbur mi. Mhm. mais da ngay comprendre que ne peut-être euh, dañ ko def pour. bëgg mbir mi mucc ayib mu bañ am lu mu duróol mhm. maanaam lépp daal jaar yoon moo waral mais man pour man man de sama gis-gis peut-être gis-gis bu gàtt la mhm. mais man dama jàpp ne mbir mi waroon naa gën a mën a bar mhm. bu waroon gën a mën a bar lii am nañu fi nekk mel ni benn ñebe si cin heure bi leneen la wax parce pour man dañoo nekk di bénéficier wu loo xamante ne heure bi waroon naa fekk ñu teg leen si raay nag parce am na loo xamante ne ñëpp gis nañ xaalis bu dugg bu dee daf koo denc fu xaalis bu dugg fu xaalis bu dugg mm-hmm. loolu lépp dañun dañ koo bëgg a xam waaye léegi su fekkente ne nag dañ leen a fal ngeen war a lijjanti loolu mm-hmm. ñu sentir ne am na yéexaay ñenn ñi ñoo yaay commencé mer ak di am am benn taxawaay bi mm-hmm. mais j'ose espérer que ne c'est dans le souci de faire de sorte que mu bañ a am benn benn ay ay ay impair si si démarche yi wala ay façon yoo xam ne dañuy jaay doole nit ñi ak yu ni mel parce que kenn waxul loolu mais eh, liñ ci gis daal mooy man jàpp naa ne peut-être kon soreetul parce que ak ni ñu ko ni ñu ko déggee récemment ni mm-hmm. dañuy espérer ne soreetul xam naa dans les jours à venir wax na wax na lu mel noonu que ne daanaka mbir yi yemb na et lu tax mbir mu jëloon temps mooy comme ni nga ko waxee léegi bugguñu woon a am men mbir mbir moo xam ne daal bu génnee dañ naan lii dëgg la am dëgg lu leer naa ne lañ bëggoon a teg moo taxoon mbir yi xaw a yéexi loolu waaw mais waaw mais loolu laa wax léegi moom laa daaneele ma ne mm-hmm. peut dañu bëgg a teg si loxo nit ñi nañ su ko defee kenn du am looy looy looy kaas wala looy looy xultu ci mm-hmm. génnee mais en tout état de cause daal li ñu ci mën a jàpp rek mooy. Mhm. Euh, pour man yéexaay bi. Mhm. bokk na ci li nga xamante ne moo tax situation mel nii. Mhm. parce que am na mu doon gaawee nag waxtu wi. dina bëri am na dinañ tal leen. non dinañ dinañ dinañ dinañ tal leen dinañ tal leen lu génn di xataraay wala nekk seen page Facebook di sabooteeg di kokkaleeg di ruube am na ñu bëri ñoo xamante ne ah dañ leen ko ñoom ñoo leen ko may ah. ñoom ñoo leen ko may donc loolu moom. Euh, ñoom ñoo leen ko maye maintenant mm. léegi nag on verra dans les jours à venir coowal contact bi nga xamante ne également doxoon na ci diggante ki nga xam ne jamono ji moo fi nekk Ilimaanu Jëwrin ak Mame Mbaye Niang ñu ñu xamal ne daal mbir ma jamono ji mu ngi ci loxoy dig te xam nga ne dig moom ci lu mu nekk moom yaakaar naa ne loolu mooy pare nañ pour l'enquête ba daal di euh, tàmbali wala sax ñu tàmbali li nga xamante ne moo di poursuite yi waaw mais xam nga loolu tey ji dossier boobu ñëpp ko soxla am mm-hmm. yow mi bëgg nga mu leer man bëgg naa mu leer Mansour bëgg na mu leer Biteye bëgg na mu leer Aliou bëgg na mu leer keneen bëgg na mu leer ñëpp bëgg bi dossier boobu leer ndax xam nga lu tax mm-hmm. mm-hmm. dafay dossier boo xamante ne comme ni ma koy waxee rek xam nga APR dañoo amoon benn benn benn benn aar quoi dañoo amoon aaru créer dossier maanaam créer dossier ñooy fekk fu dara nekkul ñu créer fa dara monter ko jàpp la tooñ la tëj la tëj ci kaso jàpp seen njàmbur mooy ni ñu ko doon expliquer ni nga doon gis ñu tuddee ay ay forces ak yu ak mhm. yooyu. man maa ngi bàyyi àddina bis ba ma benn un ancien détenu ku ñëpp xam si àddina bi ku siw koo xam ne nga ko ñëpp xam nañ ko. Mhm. mu ne Moustapha gars yi bu ñu jàppoon ne dañoo amoon seen saak yu ñu teg foofu moom ñoo ko moom. ñoo ko yor foofu ñoo ko denc foofu di ko di ko di ko di ko di ko tuumaal ay doomu jàmbur boo ñëwee ñu fotol lañ ko woon ah, de Moustapha. mais mais xam nga xam lu ci lu ci lu moo tax ma ne dañ dañoo dañoo amoon aaru fabriquer ay dossiers ak créer ay. dossiers li ngay wax nii tamit. non foofu lañ foofu lañ tolloon ak nit ñi foofu lañ tolloon ak ñun léegi régime bi fi passé ñoom façon de faire boobu lañ amoon ñoom ñoom noonu lañ mënoon ñoom lañ doon defee noonu lañ doon taxawee jaay doole kërëb kërëb dugg ci ak yu bëri ak yooyu noonu ñoom noonu lañ doon def mhm. léegi nag régime boobu tey ji su fekkente ne seen façon de faire boobu noonu noonu moom lañ doon moom lañ doon wéyee ba ni Macky saala demee mhm. léegi bu Macky Sall demee tey ji euh, avant Macky Sall dem sax autant pour moi mhm. Mame Mbaye Niang dossier bi mais fii lañ toog ñu mun nañu rapport amul te ñu indil ko beneen vidéo boo xam ne moom neewoon na rapport am na. am mhm. Ba toog ne rapport am na. Mhm. léegi kii toog ne rapport am na ñu ne ko da ngaa diffamé di ñu fay deux cent millions doyatu ñu ne ko euh, ñu ñu ñu enchaîner mbir yi ah, atte ko dem cour d'appel dem cour suprême ñu ko léegi éliminer leen dootoo bokkati ci diffamation kese ci diffamation kese ñu ne ko waaw ñu ne ko deux ñu ngi doon yéexee moom da ngeen dem cour suprême kenn du leen faale sax cour d'appel ak balaa ñu ko atte kenn day xam kan mhm. mais volonté Macky Sall moo ko bëgg léegi nit nit koo xamante ne moom li mu bëgg rek la xam mhm. mais loolu tey ji c'est extrêmement grave opposant la ma ne damay def lépp lu mu bëgg ba du ba du bokk ci élection léegi euh, léegi te li mu ko def ci justice bi la ko jaaral ñu def ko loolu Sénégal dund na ko fi. Mhm. léegi ñu koy def ñoom ñu ànd ci ak benn taxawaay boo xam ne fii la ñuy baagante waaw na génnee rapport bi dafa def nii dafa def nële ay doomu jaamur génn si ñu ray leen. ñu ray leen waaw. waaw léegi lépp yéen ngeen taxaw leen rapport amul léegi tey ma togg saa bi dégg ñu ne ma rapport baa ngi taabalu dig dig léegi ñii ku ñu rapport bi nga xamante ne moo waral ñu jàpp ñii ray leen. ñii ñu tëj leen kii ñu ne ko doo bokk ñi ñu ne ñu rapport amul loolu la ñu wax mu ne te journaliste yéen sax ku fi ne rapport am na dinaa la woo nga génnee rapport wala ñu condamné la. léegi léegi rapport bi kon xanaa après ba Diomaye togg lañ ko defar lañ defar rapport boobu moo ma jaaxal. te te jamono ña fi nekkoon ñu ne rapport amul. te jamono jooju ñi fi nekk amoon na ay amoon ma ne la bi débat bi jóge woon sax ñi naan rapport ñi naan pré rapport moom lu Mame ñi leen pré rapport sax maa ngi leen doon indi leen ma pré rapport yi yéen génne leen pré rapport yi ndax pré rapport am na. Mhm. waaye léegi yow bu dee bu fekkee ne dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne tey jii. Mhm. yéen bi ngeen nekkee pouvoir lépp leen permettre woon lu am ngeen ne amul lu amul ngeen ne am na jaay doole à gogo waaye léegi ngeen jóge fi tey jii mais xanaa xamoo sóore été ñeneen sax tey jii rapport yi ñi nekk fi di rafetal ak di yéexantu nii évacuer nañ ko bu yàgg. bu yàgg lañ koy jaarale ñëpp de. Mhm. moo tax ma nañ sant yàlla. waa APR xam nga bañ ñaan lañu war gën di ñaan saa bu ñu xëyee mhm. yàlla bu ñu fay suñu bor mhm. xam nga dañ naan euh, dañuy wax ne yàlla na la nga leb ne moo baaxul waaye dañuy faral di wax ne yàlla na la yàlla fay sa xol mhm. doo koo xamante ni wóolu nga ko exactement dafa waaye ñoom tamit ñoom tamit leen nee tey ji yàlla na leen fay seen xol ñaan googu duñ ko nangoo jël parce que li nga xamante ni leen def ci réew bi buñ ne leen yàlla fay seen bor li ngeen lebal réew mi yàlla na leen ko yàlla yàlla na fay yéen ñëpp wala li ngeen lebal réew mi ñu toog yàlla nañ ko yàlla fay fay ko seen njaboot. Mhm. ñaan boobu duñ ko nangoo mukk ñaan. Mhm. toog na par exemple li ma def ci réew mi maanaam man toog nga gis pré est-ce que di nga gis politicien bu toog ñaan loolu man li ma def ci réew mi yàlla na ma ko yàlla fay fay ma ko sama njaboot. ñu xool duñ ko mës a ñaan li ñu def ci réew mi xam nañ ne jagul. Mhm. waaye léegi ñooñu tey ji après ñoo wëlbatikuwaat taxaw fii bëgg ba léegi seen nguur daanu ñu bëgg dëkk bi jël dëkk bi en otage di baagante loolu nit ñi naan diw na ñëw ak diw na def lii ak diw na def lii man je me dis à un moment donné sax c' pas décent li ñu nekk di ko di ko subir le Sénégal. c' est pas respectueux. ba pare nañ toog Moustapha. c' est pas respectueux. a dem fenn a woo ñu la ah, man man a dem ak ñu jot a Ousmane ko doon wax. ami bu amee ñu jot a génn pour man seen responsabilité ñoom ñoo yor réew mi ñoom xam nañ ñi nga xamante ne ñii. dañ di soxla. Mhm. gis nga ñoom bañ ci toll daaw ñu Ousmane Sonko bañ barricade parfois man dama koy wax de peut-être nag dafay dafay xaw a naqaree dégg. Mhm. mais dama naan dëkk bi yenn saa yi day baax nga am tuuti benn mbaxane dictateur. si boo xam ne da mais am na am na yoo xamante ne tey jii mais mënoo leen toog après ngeen am na ñoom jot nañoo génn dëkk bi ah, man damay daw am saa boo xëyee di ma tëkku <laughs> Moustapha saa bu ma la jàppee su ma la xëtee saa boo xëyee naa ma su ma la xëtee est que naa la wan ginnaaw du la wan ginnaaw am <laughs> te noonu laa la koy waxee effectivement. <laughs> woon ginnaaw ami parce que su ma la wanee ginnaaw nga xët ma. fu ami jaar fële laay jaar. mais noonu la demee. saa bu ma xëyee ngàdd la saa bu ma la jekkoo mais du la jege ami. doo ma jege kay léegi nag loolu moo tax ma ne bu dee am na mu rëcc tamit ñoom seen responsable dafay engagé wu. dafay engagé wu euh, dëkk yañ hmm. ñoom ay pacte yoo xam ne hmm. mën nañ leen a jëli dañ leen di jëli pour man. Hmm, am na ñoo xamante ne bu ñu dëkk bi àddina bi daa yaatu de. am ñoom ne fes la ñuy def doo leen déggat doo leen gisati dem di dund ci clandestiné jàpp seen jàmbur yor seen njaboot bu ndaw aju euh, nekk ci yeneen. mais su boobaa ñoom ñoo am euh, part na benn pétition boo xamante ne bu yàggul dara signé woon nañ ko fi pour ki nga xamante ne moo fi nekkoon njiitu réew di Macky Sall daal di ñëw parce que dañu jàpp ne lépp loo xam ne rek peut-être xew na Sénégal moom. en partie moom mooy responsable bu njëkk bi waral ñu jàpp ne moom ci ñu ñu war a jëlee ci la ñu bokk. mais Macky Sall xam na loolu. Mhm. Macky Sall moo la gën a xam ne dossier yu bëri ñuy tudd fii bu ñu ko toppee ba ci ñoom waxtaan bi day ñëwaat. Mhm. moom xam na loolu. moo tax ma ne man dama d'accord ak gis nga bu ñu ci lii dem am na ko ma ko wax ma ne ko billaay wax nga dëgg réforme yi ñu dëgg dëgg dëgg dëgg il faut ñu am majorité ba pare. Mhm. ñu doog ci mënu a jublu parce que constitution am na yu bëri yoo xam ne faw ñu laalaat ko man dama gëm ne. Euh, li ñuy wax haute trahison dafa vague. fourre-tout la lépp mën nga ci dugal lu nekk ci biir c'est vrai mën nga ko toppee sax comme ñi faatoo yu ni mel nga ne ko li haute trahison la qualifié ko de haute trahison daal di koy dem convoqué ak yu ni mel yooyu mën nga koo def mhm. man dama gëm ne tey ji war nañu mën a am njiitu réew mu aye wa fégal ñu topp ko ci loo xam ne da ko jaarul yoon ci dëkk bi dafa war a mën a nekk France def nañ ko ak Sarkozy ñu gis euh, Donald Trump euh, États-Unis def nañ ko ak moom waaw ah, mais pourquoi Sénégal ak yeneen dëkk yi waruñu koo mën a def. est-ce que gii Mauritanie gii. Mm-hmm. def na ko Abdoul Aziz. Mm-hmm. waaw mais pour man war nañu mën a toll foofu mais jël président ni ko dundoo doon waxee président hyper royaliste yoo xamante ne kenn du leen laal. def ko un demi-dieu entre waaw day def lu ko neex daal di jël avion ne fes dootul sax toogaat si dëkk bi non dañ naan lii ak lii ak lii ñu woo la nga ñëw duñ ne dañ lay tëj ngay dem di dikk toog fii yoon di la wóolu ngay ñëw mu lay convoqué ñu lay déglu lu mu laaj la ko est-ce que parce que loolu bu ñu ko defee am yi nga baal ma rek mm-hmm. loolu bu ñu ko defee mm-hmm. dafay loo xam ne dafay jàngale tey ji ëllëg bu ñu falee benn ami wala ñu fal benn Moustapha mm-hmm. lépp lu may signé leçon lay doon leçon lay doon lépp lu may def dama naan lii kat attention dem ba wàcc fii kat ñu may wóol du ma may baagane taluma ko samay ñooñ am lu def ma ne def leen dànk suba man la ñuy woo Mhm. waaye le président n'est responsable devant personne devant rien du tout. Mhm. loolu baaxul est-ce que yaakaaroon ne peut-être Moustapha euh, constitution bi peut-être pouvoir bi mu jox ki nga xamante ne moo di njiitu réew mooy ëpp jotul ñu wàññi ko peut-être koo xamante ne nekk nga njiitu réew boo wàccee dinañ la mën a woolu sans problème aussi. waaw ouais, mais xam nga da koy da nga koy équilibré. Mhm. parce que mënoo ko exposé parce que li muy li muy li muy jël ci ay dafay bëri ba ba du ba bu nekkee président day tiit mënoo ko. Mhm. mais quand pour man am na ci yoo xamante ni. yenn pouvoir mel ni yenn crime comme ni ñu ko dundee ak Macky ak yu ni yooyu. Mhm. yooyu pour man ay mbir yoo xamante ni bu doon yenn dëkk yi mérité na ñu def benn mise en accusation. Mhm. woolu président bi euh, mu dem ñu ñu ñu jëlee commune wala ñu xool naka lañ koy defee ba yenn yoo xam ne dañ naan lii ak lii ak lii njiitu réew bu ko def. dañ lay jëli nga ñëw. donc pour